أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وسندنا شيخ الأكبر الكبريت الأحمر وصاحب الختم الأبر والغوث الأشهر والخطب المكتوم تاج العنا تاج العارفين وممدهم شمس الولاية الكبرى والختم المعلوم سيدنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاني رضي الله عنه جعلنا الله ممن سقاه من فيض معارفه أعظم الأواني mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ku nekk turam ak santam di leen ziyaara di leen baalu aq di leen bal aq comme ni ñu ko baaxoo defee samedi bu jot dellu si ak yéen ci seen bindu jataayu tariqa bi wala xam sa tariqa waxtaane woon nañ ponk yi ëpp solo ci tariqa bi wala bokk rukkunu yi yi nga xamante ni moom mooy tariqa bi mooy lépp loo xamante ni aju na ci wérde bi ak lépp lu aju ci wazifa bi ak lépp lu aju ci xadaratul jumaa tey li ñu bëgg a waxtaane rek mooy lenn ci karaamay seydina seex radiallahu anhu am na ci yoo xamante ni jotoon nañ ko waxtaane waaye ñu am yu ñu ci dolli pour rek dëgëral kóolute karaama yi nag nekkul lu seydina seex sàkku ndax comme Seex Alxaaj Maalik li mu wax rek ni innal karaamaati xaydun lirrijaali falaa tusif li nafsika innal wasfa lillahi wane karaama ci wàll yi comme góor gu gis règle rek nee na nee na bul melal sa bopp mukk nag yàlla moom moom melal boppam kon karaama yi rot ci Seydina Cheikh li am solo pour xam ko mooy du loo xamante ni lu ci bari moo ko waneel boppam waaye dafay génn rek ci moom xeetu xarbaax yi nag maanaam loo xam ni dafa génn ci aada ñu naan ko xarbaax lii lañu baaxoo lu génn ci aada ñu tuddee ko xarbaax xeeti xarbaax yi juróom benn la am na lu ñu cay wax mujiza mujiza mooy mbir moo xamante ni dafa xarbaax feeñ ci ab yonent comme yonentu yàlla Muusa nam daan def sànni yat wi mu nekk jaan mu jàpp ko mu nekkaatu yat loolu xar baax la ndax aw yat kenn baaxoo wuti yat wa aw yat di nekk jaan loolu loolu xar baax la ndax li ñu baaxoo woon mooy aw yat du nekk jaan beneen ba ca topp mooy lu ñuy wax irhaas irhaas mbir la moo xamante ni dafay xotti aada waaye dafay feeñ ci ab yonentu laataa muy woote ak yonentu wala boog laataa muy nekk yonentu loolu mooy irhaas loo xamante ni xar baax la feeñ na ci ab yonent laataa muy nekk yonentu loolu lañu wax xar baax karaama mooy loo xamante ni suñu boroom daf ko terale jaam bu sell ñu koy woye waliyu jaamu yàlla mooy koo xamante ni dem na ba dëppoog suñu boroom la nga xamante ni def na ko mu génn ci aada loolu lañuy wax karaama am na lu ñuy wax ihaana doya dal mooy loo xamante ni dafa génn ci aada waaye yàlla da ko def ci loxoy kàccoor pour sippi darajaam pour suufeel ko comme musaylimatul alkazaab ba mu tiflee ca teen ba teen ba fuur jóg kaw ñu ni eskay ñu ñam ko mu wex xat xorom kenn mënu koo naan loolu la ñuy wax albirul maalix kenn mënu koo naan te ci doon roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam bu mu laal ndox mu tuuti mu mu bëri wala ndox mi di ball ci ay baaraam moom ak yooyu mu bëgg caa roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wujjeeg moom far yàlla doye dal ko ak ka nga xamante ni Musaylimatul Kazzab dafa tifli woon ca bët ba pour mu wér far yàlla beneen bët ba gumba loolu ihaana la mooy doye dal loolu tamit daf ci doon roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci aynu qataada yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gazwatu Uhud qataada dafa taxawoon di fegal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeej yi ñi sànni mooy feles yi feles bu bu ñu sànni mu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu kar ko ci loxoom wala dënnam ak yaramam fu mu mënati ak boppam ak lépp def noonu ba xare bi waaj a jeex xeej bañ mujj a sànni dugg ca bët ba bët ba tuuru génn ndax xeej yi kii yi fett yi bokk yi yi arab yi daan sànni dafa daan danger trop xataada daal di jël bët bi téye ci loxoom ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ko rek rangoo ñoom tuuru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jël bët bi teg ko ca fa bët ba nekkoon ñaan ni yàlla dellool bëtu xataada bi na mu meloon yàlla def bët boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanoon raay ci gën a leer sax bët beneen ba ca des moo tax ñuy wax ni xataa dafa mujj sax am problème ndax bët ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanoon raayoon dafa gën a leer beneen bët bi ba daf ko daan indil problème kon loolu la musaylima doon roy far yàlla toroxal ko loolu mooy ihaana loolu mooy al ihaana am na lu ñuy wax tamit al mauna mooy ndimbal jaam boo xamante ni jaam bu simple la bis ñëw yàlla dimbalee ko benn mbir moo xamante ni dafay xar baax loolu moom la ñuy wax mauna am na lu ñuy wax al istidraaj mooy njaa yàlla mooy ku yàlla jay comme firawna yàlla jayoon na ko lool muy def lu xar baax muy xar baax di wax ni mën na lépp fekk woo am na lu ko yàlla di am na lu ko yàlla di fiire yore lu ko yàlla di xaare moo tax ba ko yàlla naree alak ba ñu agsee ca géej gi géej gi xar dañ ni siraaw na moo bari ay ay ay kii moo bari ay kéemaan daal ba yàlla xar géej ba géej gi xar ci kanamam maanaam géej gi xar ngir moom fekk woo yàlla moo ko cay fiir waaye ba Muusaa demee ba ca beneen tefes ga dóoraat yet wi ci géej ga ca la ca la firaaw na xame ni li ko yàlla doon defal lépp da ko doon jay rek kon yooyu xeet moo am li ñuy wax mujiza ak irhaas ak karaama ak mauna ak istidraaj ak ihaana juróom benn xeeti xarbaax yi moom moo am sayidna cheikh radiallahu anhu xarbaax yi ko yàlla jox daanaka am na lu ñuy wax xarbaax yoo xamante ni xessiya am na yoo xamante ni maanawiya la maanaam loo xamante dañ koy làmb daj ko ak loo xamante ni dañ dañ koy jàpp ci xel bokk na ci karaama yi bi jiitu mooy karaama bi nga xamante ni ngëneelu tariqa bi comme li wax ni tariqatuna tariqatu maxdil fadli aataaha li sallallahu alayhi wa sallam minhu ilayya min gayri wasitatin yaqadatan la manaman nee na tariqa bii say yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma ko jox mu jóge ci moom ñëw ci man kenn doxul suñ diggante nag kenn doxul suñu diggante du jibril du keneen te ba ma koy jox nelawuma dama doon dama yeewu di xoole yaqadatan la mën a aman ru'yatu nabi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa defoon nañ ko bind ci bind yi weesu lépp lu ca aju woon waxoon nañ ko ca kon loolu karaama la karaama yi ci daje bari na mooy ngëneel yi daje ci tarixa bi karaama la gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam karaama la waxuma nag ci ay gént waaye ci ay ci ak yeew kon yii yëpp ay karaama la yoo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko defal Seydina Cheikh Seydina Cheikh nee na tariqati tariqatu shukri ndaxte kat tariqa bi comme que ngëneel yi ci nekk yépp moom faggulu ko boppam mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox tafaddulan bu boobaa nag tariqa bi sant yàlla rek la war a doon mu wax ni bokk na ci ngëneel yi ba tey mu ni inna saaxibi maanaam ki ànd ak man laa taakuluhu naar walaw qatala sabciina ruuxan ida taaba baadaha nee na ki ki ki jël sama tariqa bi sawara du ko musa lekk donte dafa rey soixante-dix personnes waaye nag su tuubee ginnaaw loolu point bi bu ko kenn def occasion dina ñëw ci kanam lu koy leeral kon loolu lépp ngëneel la ndax nag wallahu yaxtassu bi raxmatihi man yacha wallahu zul fadlil azim yàlla yërmaneem moo koy jagleel ku ko so te ngëneelu yàlla dafa màgg lool te lu yàlla ni dafa màgg lool kenn mënu koo natt kenn mënu ni fii la yem fii la tàmbalee fii la yem kenn mënu koo tënk qul inna al fadla bi yadillahi yutiihi man yacha wallahu waasiun alim yaxtasu bi raxmatihi man yacha wallahu dul fadlil azim ngëneel daal ci loxo yàlla la nekk jox na ko Seydina Cheikh jeex na tàkk lu yàlla terale Seydina Cheikh la jërul weddi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafraxu huwa xayrun mimma yajmaun moo tax jërul jërul nit di ko weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la yatamannayanna aqwaamun annahum aktharu min as-sayyi'aat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba ci yàgg mu ni dina am ay nit yoo xamante ni dinañ toog di mébét naan lu tax bariluwul woon ay ñaawteef yu ñu def ñu ni kon loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu tax mu ni ndax lan allazina baddala allahu sayyi'atihim xasanaat mooy ñi nga xamante ni yàlla dafa wuutal seen jëf yu ñaaw yooyu ay yiw kon nit mi loolu rek dafay leeral ni ki nga xamante ni yiwa di bu mu mus a nekk ñaawteef bu mu mus a nekk bis bu ca tuubee d'accord ku tuub day mel ni bi ku musul def bàkkaar bu duggee ci tarixa bi Seydina Cheikh bi ñaawteefam yooyu mel ni ay montagne toll ni montagne ndax bari moom lañuy jël remplacer ko ko ay xasanaat defal ko ko ay xasanaat kon loolu ngëneel la ci tariqa bi boo xamante ni karaama gënu koo màgg Seydina Cheikh nee na kullu acmaari nnaasi dahabat majjaanan illa acmaaru asxaabi wala boog illa acmaaru asxaabi alfaatixi lima uxliq fa innaha faazat bi ribxi dunyan wa uxra wala yatlu biha illa sacidun mu ni daal dundi nit ñépp ku nekk dundam mën naa dem mu am lu mu ca perte ba mu des dund ñi nga xamante ni ñooy jàng alfaatixi lima uxliqa muy salaatul faatix mu ni ñooñu daal am nañ ngañaayu àdduna ak ngañaayu alaaxira mu ni kon nag laa yatlu biha illa saidun salaatul faatihi ku nërta texe yàlla du la ko sédde doo ko jàng loolu nag bu ko nit déggee déggin bu négatif firiwut ni ku jàngul salaatul faatihi da ngaa texee di déedéet salaatu bu waaye julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën na laa yóbbu ci àjjana salaatu bu ju- yonent bi julli ci bu nit julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nga am yoolu julli ci yonent bi ñu bari loolu lañuy nii la ni ñuy interpréter texte yi mooy indi problème te gis koo xamante ni bu ñu nee salaatul faatiha ku dul ku nar a texe rek doo ko jàng ngay gis ku ci déggee ni ku ko jàngul da ngaa nar a texee di déedéet ki jàngul salaatul faatiha di jàng leneen tamit du texee di xëy na yàlla moo ko boolewul rek ci ngëneel gi jeex na tàkk Seydina Cheikh radiallahu anhu dafa wax ni ci ci karaama boo xamante ni ngëneelu salaatul faatihi la mu ne falaw quddirat miatu alf qabila fi kulli qabilatin miatu alf rajul wa aasha kullu rajulin minhum miata alf sana يذكر كل واحد منهم مئة ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير صلاة الفاتحة وجمعت هذه الأمم كلها وفي هذه السنين كلها في هذه الأذكار كلها ما لحقوا كلهم ثواب مرة واحدة من صلاة الفاتحة سيدنا سيادة واحدة سيو tegoon mi atu alf qabila maanaam téeméeri junniy xeet ay giir téeméeri junniy xeet yooyu téeméeri xeet wu ne téeméeri junniy nit ne ca ñoom téeméeri junniy nit yooyu ku nekk dund téeméeri junniy at te boole ci seen téeméeri junniy at yooyu ku nekk ci ñoom yaa ngi werd benn salaatu waaye salaatu boobu ngay werd du salaatul faatixi mu ni bu ñu daje woon bu ñu dajale woon ñoom li ñu werd lépp ci yi at yépp jotuñu yoolub waa ji nga xamante ni toog na benn bis jàng salaatul faatixi kooko leen ëpp yool loolu Seydina Cheikh moo ko wax loolu nag du dara ngëneel la boo xamante ni yàlla moo ko jox Seydina Cheikh mu nekk salaatul faatih tout court kon loolu maanaam tarixa bi ci boppam rek mucjisa la kii la bokk karaama la maanaam karaama la boo xamante ni karaama maanawi la nekkul lu ñuy làmb daj ko waaye lu ñuy dégg la ak lu ñuy gëm ak xol te loolu nag zalika fadlullahi loolu ngëneelu ngëneelu suñu borom rek la Seydina Cheikh ni lépp lu ma leen tuddal lépp lu ma leen tuddal ci salaatul faatix ak leneen ci ci ci ci ci ci werd bi ngëneel la boo xamante ni yàlla moom moo ko gënaleel sama sama askan wi te nag ci ci ci côté zahir rek la loo xamante ni genn wàll ga kenn tudd ko gi ne ci li ne ci biir maanaam lii côté baatin moo tax nee na lawi tala lawi talaa akaabir al aqtaabi lawi talaa akaabir al aqtaabi على ما أعد الله تعالى لأصحابنا في الجنة لبكوا عليه وقالوا ما أعطيتنا شيئا يا ربنا نينا لي يالا دخنيل أقطابي تا بولين كو بولين يالا وانا لي مو دخنيل سما صحابي تا الجنة أقطاب يوي نين جوي ني يالا دال نيون سيدي وونيو دارا ndax rek ngëneel boo xamante ni yàlla daf ko gënaleel saxaaba sayidna seex si na si waxaat ni laysa li ahadin min al awliyaai an yudxila al jannata wala an yudxila kaafata ashaabihi al jannata bi gayri xisaabin wala ciqaabin ila ana waxdi walaw balagu ma balagu min aldunubi wa camilu ma camilu min almacaasi nee na yàlla jagleelul kenn ci waliyu yi nga dugal mbooleem say saxaaba aljana bi xayri xisaabin ci lu dul regle nag wala iqaabin ak lu dul benn mbugal mu ni illa ana lu dul man kese mu ni walaw balaxu donte dañoo jot sax ma balaxu min azunubi donte dañoo def li ñu def ci ay bàkkaar wa amilu ma amilu min almaasi ñu jëf li ñu jëf ci ay ay mooy yàlla waaye nañ nañ def attention bu baax ci texte bi texte bi Seydina Cheikh moom moo ko wax waaye am na exception mi ngi ñëw ci kanam mi ngi ñëw ci kanam ndax ñu bari dañuy bëgg a jël lool rek def ko wéeruwaay di mooy yàlla num leen neexe waaye loolu dana leer insha allah ci beneen texte boo xamante ni Seydina Cheikh moom moo ko wax mooy lan mooy nit ki bu mu wóolu pexem yàlla moo tax mu ni kullu ma zakartu fi hadha tariq xaqun waaqiun lépp lu ma la wax ci tariqa bi lu wér la lu am la in salimna min makrillahi bu ñu muccee ci pexem yàlla xam nga lu jar a dégg la xam nga kon li muy wax lépp ci coobare suñu borom la koy wax su yàlla ne waaw rek exécution bi am kon al amnu makri al amnu min makrillah mooy problème bi mu ni fa rusulu alayhim salaatu wassalaam ala jalalati qadrihim wa uluwi mansabihim ma aminu makrallah wala yamun nag makrallah illa al qawmu fasiqin mu ni rusul yi muy ndaw yi yàlla yónni mu ne ak seen màggaay ak seen cër yépp ak kawe gi nga xamante ni moom la seeni manasib kawe maanaam seeni seeni seeni barab mu ne ñoom day wóoluwut woon pexem suñu borom ndax nag yàlla moom kullu yawmin wa fi sha'n kon lim la doon wax ni nit ki lu mën a def ci ay ñaawteef ak yépp mën na dugg dina dugg aljana bi xayri xisaabin su fekkente ni nag wóoluwut pexem suñu borom kon loolu tënk la ci mooy benn tënk ci li mu waxoon ca texte bu njëkk bi mu waxaat ci beneen texte moom Seydina Cheikh mu ni abshiru inna kulla man kaana fi mahabbatina illa an maata alayha yubcasu min al aminin ala ayi xaalatin kaana maa lam yalbas xullata al amaani min makrillah xam naa Seydina Cheikh li mu gënoon a bàyyi xel gënoon